ɓe react kan ah, national assembly member ɗo bi jeyi ka fa yaya malum fo yaya, yaya menten menten sanya. Sanya. ha, ha ya okay. mato lomba mato muka fo no fan ha yudu bin ko la député wala ha de yaya okay. menten saña lati kunda okay lati kunda sabi je mm -hmm. uh, ah, al, al, al reaction o mm -hmm. uh, instead of ah reporto ñing ay ko landi ñameng ay mm-hmm. reporto ya fo ñameng -hmm. ay ay ay ay bulano mm. ate fintitale di mm. uh, mi ya lon ko ripoto ye min be landi landi mm-hmm. ate fintitale mm-hmm. ako mm-hmm. uh, ni aje councils nyoli bi ke la do ko ke il afta ka ke nyame ako parce que man sakunda wale ke wala ka interfere wale ka dabulaji ako man sakunda le ka dabula council la do ko to wala atina council lafta min ke la ibuka ke ha aya fo ñaame english to bari mm. nte na facebook page o to mm. mba be koyndila je e mulla mm. eh, indi english version bari saynten be local language le ke kan sa mba ma explain la noten le um, ako ah, falmaje kmc min keta nun je ate yaya men ten saña ako falmaje kmc min keta nun je birin eh, kmc la ceo ah, ya sindi ako mansa kunda nata ayo ceo impose KMC kan and wo manke a nyati abe fanial okay so yaya menten sangan na kanyum kuma fo national assembly bi fo yalla kuma ndi KMC ko laban fo du yalla kuma because ma understand iman kuma ndi KMC ko la mm -hmm. iman kuma ndi KMC e la ko la Uh, in fact mbe min fola gambiyano le ko wo tambitale mm -hmm. kuwo be kuwo nyim be commission o bulu Alinga singa nga si nga commission o batu, batu ayala do ko ke mhm. ni momo mi mi ya ko ilate fan la mm -hmm. ye fam muta mhm. ye commission o batu, batu do ko ke mhm. na pareta I ay be min landila iba landila le andu iba tamandila le it will be implemented mba ya yaya maintain sanya yeko. I ay min ke national assembly is is is is cowardice hade xaadi wa mu jutu wa wa naka lañ ko dee waxee sax dafa dafa dafa dafa amut fit xaadi mhm. mhm. ate man la falla mbe wale foka parce que yenku mandi min la personal attack la yaje wale personal attack aye wale ke mhm. ha he was a big cow up aye min ke bi personal attack aye wale ke because report o nyinto ima for CEO nin KMC it, it nothing as such was mentioned in the report mm -hmm. Imang CEO Lakuo Mensonje, Imang KMC Lakuo mensonge. Mm -hmm. The National Audit Office, ila findings, mm -hmm. ni tata every year, kata audit exercise minke uh, Gambia beko no councilor beto. Mm -hmm. Ila findings, yemin taraje, mm -hmm. wal, wal ye mhm. wal, uh, pour aye mol distract, wo report o ye minke, mm -hmm. paski yalo ito lebe nun councilor to. Huh. ila tiñaari baa wol ye wol ye min jeje mhm. pour que mool la mayin bondi je mhm. a naata ka ñun kuwo naati nan annu nte sonnaa la bi nte sonnaa la saama annu yaaya meta kaa la kumoo moy le ŋa moy le aman mhm. respect soto ama ama fan respect fan because ni amoy be mo respect la we are ye fan respect le yeah uh, yeah we we wo mutonya because last time nga amoy le mm -hmm. anila ala own fellow member me anan ko UDP député wala mo fat cham mm -hmm. aba foka ko ma respect ko soto mm -hmm. ikata exactly ko dane lolo si exactly. sama atadala aka musol disrespect aka mis musol mm -hmm. nte be sirinje nte nga believe le fang ko ay wot soto le comme nte bije si mm. the CEO of Sen, uh, eh, KMC for, uh, eh, former CEO KMC Senabu Martin Sonko wo bijele mm -hmm. Mm. and i was so hot that i had to walk out but in buffalo yaya maintain sanyeko today I, I i have walked out i am promising you that i will never walk out again yaya maintain sanya ngamole ikulu bal yatale imam kulu mm-hmm. iman respect soto mm-hmm. ime fan respect fan Saka ibe hadama dingo e nyong hadama dingo respect la yaya maintain sanya buffalo ko kulu bali ya deni mm-hmm. kolom hade wati o wati ning na mari solata ala ya dum na pareta ya fintinde aya saki imam ira ko yamin dem fon abe nyi manya daji kanta yal min nete imam ira ko fon jannabi ta 5 million mo tala atata ala mul mako le koñol to lafta wole fola ate ate ko man sakundale um, ka ka, ka dabulandi ke ke naka KMC kansulo la kuwol to man sakunda juma parce que nte ako man sakunda yente impose le man sakunda man impose nte nga court order le soto mm -hmm. andon ñing code order the same code mi yalon ko itol chairman wol aning mayor ñol mil borto nin code iko itol man la fi kata interim leave la mm-hmm. wo code mi yalon ko wala silo di la ako yesi si to fo ye ye carte o fay mm-hmm. wo code kilingo wala silo di na ako ngamurum parce que iman fenjente bala mi ya lon ko nyanta inte nyanta nyanta sila le manta do ko la ye ye it, it was only a mere accusation mm mm-hmm. accuse le and it was never proven anywhere that what they were alleging against me to nyalo mm -hmm woman soto hani side. woman soto no okay ate ya ya menten sanya meme fulaye mm. ate mm. ate nyan ate ay I, ay fen soto la nyanta focus la minto mm-hmm. ate he is a national assembly member andu ala molbe jekiringal abakele mm. ate ya menten sanya ate mune achi follow bira bira birin ala moli adundi national assembly member ah ate alawo moto it's almost 5 million dollars is i mean aka min borindi mm-hmm. i mean ta national assembly okay Eh, Alamoto is almost 500. 5 five million. 5 million dollars I maintain. Mm -hmm. Okay, continue. say wo, wo 5 million dollars is. Ya ya maintain be nyinin kala. Ya long wo, wo kodo ay ay fuare jelule makwe. Mm -hmm. Ila ila ila ila constituency ya ya maintain sanya. Ah? Mm -hmm. Ay school fees jelule jo ila constituency. Mm -hmm. Ay dapasi jelule de, de ma, ma fo. Ay mo jolle Hani hani mhm. musol wo musol mi ya ko mhm. wolle ete wol city fay quartier fay. wo 5 million ni yata yata lanta le tema ya foy ko alita al yalla business o londi isaje sinin sama ase tan ase taranu al I alte sola la kodola mobulu ase no ko ke ase kodo soto ase al fam I ase la ya al makoy mm. ila wa moto wo se no ya mente san before be they attack the personally. Why don't you shut up yourself first? I will totale. I'm a reject. I'm a reject. Now, Safa Babula Modol no make this i And in Mansakunda no make stop. So, yeah, maybe yeah, ke ke ke personal attack. It was a personal attack, and these people are tormenting me. Hmm. Alaji Bambo, this is the info information that I want to give to the whole Gambia. And I'll go to my Facebook page. Mm These people, anywhere they have the opportunity, they want to torment me. Mm and ilaplano ngalole, they want to intimidate me to, to, to keep quiet. I am not going to do that. I will not sit around here and watch them intimidate me. Ah, kan na image tanis unnecessary wayatara ah, be fani yakan. Nyul nyul mol hanyita alala bakele fani ya folali nyul buka malu fang. Nying kewo anila kurto ye ye ye bula muso no maten. Ah, bari yaya min te mbafule ko natara ite muke wolete andu ite musole muy bamati mhm. if you meet me on the street face to face mhm. natara ite mu jambaroleti ah mhm. ilate fan la ye min fo bi national assembly just say it in my face you will know me atol kanjele alman lo atol kulubaliya tele atol man kulubaliya kulubaliya min kulubaliyata wo buka yitandi wo ke batule fo the right time aya a ñanta yitandi la dami buka malu fang a uh, welemu a uh, sioti zeinabu matim sonko commin ala banque moye tembo men na banko la député bu ngi commande bi pour yata député bu to e nyanta ka sio soto ji eni le ciamano le bari euh, atani zeda martin sonko ay atandi ko atani député membe latri kunda sabi e ka fo me ko yaya menten sanya anata horomanta yani kerse bo tandala jeto zeda martin sonko afelenting abala diamol banke kan tembo men ba interview kan janto tembo men nyi sio nyi banda ba continuer la pour ka joko ka yaya menten sanya ye manyalu men kanin daji kan dayalu banko le député bu kono atani musola même leri zena bari ka fo me ko zena martin sonko aɓe tentana kañum kumol koyndi alabila moy ko alaji bambol labaro doro le deuxiéme c'est continuer iko yayala ñum kuwol kata bi bi national assembly aman malu ake ake tobi je mhm. aman malu aman sila and on just this morning they were talking about uh, female circumcision mm -hmm. all of them were defending it in turn mm -hmm. ate muruntana aka a, a, a woman disrespect in the presence of everyone there that means he was just doing a lip service to the uh, agenda that was being discussed. Amanfuta mm-hmm. Ajisoto. He just wanted people to, to know him. He was he, he wanted attention. Mm-hmm. Abe min foka Amanfuta mm-hmm. miye muso horoma. Your behavior, your attitude and everything waleka itendiko nyin kewa muso horomale. Ya ya maintain even your own fellow party members. Ima bule. The other time ngai mo eh, the, the, the honorable eh, member Fatu Cham. Yeah, yeah, yeah, attack for si ama ama wala julo fa ah, bala wala julo ah. bala because ka fayne koy ni man jo ah, ikata officiel do dani ro ibe dani ka bi fo la can you imagine mhm. ite ite la ite ite wo shot out la mhm. jandi be ibe ibe KMC to me that is past and gone where, I am I am satisfied mhm. I am happy and satisfied nte be dame nte man sakunda man sakunda KMC the ministry Mm-hmm. employed me and posted me at KMC. Mm-hmm. I am qualified. Mm-hmm. For your information, I am Sanyang. If you don't know, let me let me let, let me inform you. I am a master's degree holder in public sector management. I can teach you administration. I Yaya Menten Sanyang. Aketale Kodorong, ye vote le, ye Samba National Assembly. You are not more qualified than Senabu Martin Sonko, and you are not more Gambian than Senabu Martin Sonko. Ni pareta mila mintambita wala mpareta wala nying Gambia kono nga foye. What is going on? What is going on? Huh? Ah? Can you imagine? Okay. Bari na mambula mba fly ko the battle line has been drawn. Mm-hmm. Nako mo doli ya yen nako dato nyame ni ano yen nako bondi dato nyama ni mambula. Mm-hmm. Yalo ila ila ila ila colleague ako ikata da ni role office. Bari bita me to sada da mm-hmm. If you don't leave me alone. Mm-hmm. Okay. Thank you. Uh, baraka bake. Wale mu uh, CEO design Santem. Ebe Kerewan Area Council. Kerewan Area Council. Area Council. Okay. I am happy there. Okay. I am Okay, imo sign siwol ti yeyta transfer le kerewan era kansol enin honorable papa tunkara ciaman papa tunkara ɓe dokuwol kol isa fono moli sign ting ko bi tata ñindula to yemune sewo kusoto ana la do ko ta kan ñaadile ini molla interaction be nyadile society ñing kono kerewan jira a ah, alhamdulillah mbi ala tentula Ah, mbe mbe nakila mbe salla nakila bato sallallahu alaihi wasallam banna mbe mululal fanantentula mbe jayla mm-hmm. and my well wishers, my supporters, mm-hmm. everyone, me along, they have supported me in one way or mm-hmm. another. Ah, Birin tata je Cairo dorong, alhamdulillah, nga wore tata je, na chairman Cairo mo balom, mashallah alama ah, alayen tanka setanola mm -hmm. natemo mm -hmm. aninna doku lalbe mm -hmm. uh, ah, they welcome me with open arms mm -hmm. i am happy and satisfied there andun doko mba tamandi kan nyanta ka tambani nyama ali mm-hmm. ala ku al, ala ku ali amwele ama mm-hmm. mo umpa jangambia mm -hmm. nte bafula eh, this guy yaya menten sanya fo ite chairman papa tunkara jibe mm -hmm. abe doko min la ala ala, uh, region mm -hmm ah ite ite ite wakkata la yaka ila constitu ila constitu constituency wala wala fisi ata ibe muso normal e be attaque la nte nte man ñin long ay nte man ñin long society kono fang mm-hmm. na man kanu ya sama national assembly am i would have never known this guy ah mm-hmm. ma fole ko mm-hmm. ah, ila ila colleagues ñol jibe ibe min ke kan ibe la dokole noma fatata wandi dingol la yewo ye yewo ke wala muyla kayroti especially musol musol bula mm-hmm. musol man fenke la natara ite mu jambarol itite la nyonke wol yaban bari mba fole ko nini mm-hmm. benta siloto just tell me anything you will know me okay sama mbokki wolof maa ngi nuyu nuyu yow albaari laaj ba mboole baroo dorom dañu am fi uh, CEO former CEO KMC léegi moom mu ngi nekk CEO uh, uh, Kerewan Area Council tey danañ ko am interview fi because dafa am lu happen National Assembly tey tey loolu def ko naxari torop torop torop torop because am na benn National Assembly member Yaya Menteng Sanyang dafa ñëw mu disrespect ko te kii jigéen la so loolu moo tax ma tey ma ñëw jàng pour ma interview ko mu wax lan moo ko naxare si eh, Yaya Menteng Sanyang because Yaya Menteng Sanyang amul xoromo def dee nekk disrespect jigéen so ah, léegi bu tey dana wax leen mu faram-fàcce ko léegi Zeynabou ah ñu continuer. asalaamaaleykum wa rahmatullah mm-hmm. ah, maa ngi leen a nuyu mbokki Gambia. Mm-hmm. Ah, di leen gërëm di leen sant di leen jox seen wàccuwaay. Mm-hmm. Alaaji Bambu tey dañ ñu invite on National Assembly. chairman yi ak seen CEO yi. ne pour ñu ñëw teewee FPAC. findings report bi. tey lañ ko doon di present ci National Assembly. FPAC bi mooy di public. uh, the Finance and Public, Public Accounts Account. Mm. Committee, mm-hmm. FPAC, the mm-hmm. Finance and Public Accounts Committee. Mm-hmm. so soo leen bàyyi xel um, balaa local government elections yi ñi ngi doon di eh, dem foofu noonu waaw so mm-hmm. si report bi uh, there was nothing mentioned as Sainabou diggante Sainabou Martin or the CEO of KMC at KMC so it was a general report about council activities yi so ñoom biñ présenté report yi ñu ngi nekkoon foofu sax nekk fa suñ jaama xam nga council pro lifin bi euh, euh, national assembly proceeding mu ngi doon di dem very well amuñ fa benn xaar ma yàlla waaye after this presentation of the report by the the the chairman of the committee Yahya Menteng Sanyang in his reaction ah muy you go for for all of <laughs> you are speaking English waaw waaw <laughs> waaw Yahya Menteng Sanyang si reaction am mm-hmm. ah, mu ne soo gisee council duñ dee deliver niñ bugg a deliver yi parce que government ñoom saa yu nekk ah, dañ dee am soxla si mm-hmm. di lijjante council mm-hmm. mu ne soo leen seetee mm-hmm. ah, eh, KMC li fa xewoon si e bi ak ah, council bi bi ñu amee problème eh, government dafa def executive order ne impose CEO bi si council bi te loolu noonu loolu loolu lan la jotee ak council lu moo deliver te te CEO bi impose suñ ko court order la CEO bi am council bi dañ def liñ def fen seen fen tapale seen tapale sosal ma mm. amuñ benn évidence buñ bu ñoo mun a wane ne ñoom li ñoo oote si man loolu dafa am mm. léegi court bi ne nii naa dellu dem liggéey mm. ba bañ bañ bañ wax ne nii leen lii laa def loolu mënut a am ba léegi waaye ñoom ñi ngi bañ a bàyyi loolu noonu loolu lan la jotee ak ak tey report bi lu ñu doon di présenté si national assembly bi mhm. ah mhm. Yahya Menteng Sanyang mhm. dégg naa affaire am yàgg naa dégg affaire am sax ne dafa dafa ñàkk a respect dafa respectu respectul boppam sax muy respect keneen moc moo jigéen ku ku ku xamadi la ku réew la waaye dafa jaay xamadi ak réew man ngi laa wan ne la yoo xamadi wuloo xamadi ma yëgal la mbuba la da koo sol saa yoo ko soxle soo paree nga sibi ko aj ko fële li nga waxtee si national assembly bi fen la it was misleading Yahya Menteng Sanyang man ban government moo ma impose KMC the same government boobu xanaa Yakumba te yóbbu ko court a ah, Yakumba wiinut keesam te the same court di si la mayor yi daw dem ak chairman yi ne duñ dem interim leave mhm. ñu teg leen foofu noonu the same court moo ma delloo waat mhm. ma de ma dem liggéey for your information if you don't know mhm. soo ko xamutee Yahya Menteng Sanyang waaye yow pareegu maa yow ba bi yow tey ok ba léegi interview bi ah, mu ngi continuer man suma diggante ak ah, lady Zainabou ah, CEO Zainab Martin Sonko léegi danañ continuer ko nga because gis nañ wax nga fi Yahya Mentane Sanyang def la disrespect si National Assembly tey léegi dañu continuer ko tenka ndaa lay comme National Assembly members bari nañ foofu ok eh, is it Yahya Mentane Sanyang is the only person there or other National Assembly members are there mm. were you there with your chairman Papa Tunkara and what has happened. waaw dem dañu bëgg a pour léegi nga fatam fansi ko waaw. maa fa woon ak suma chairman. Mm-hmm. Ah, National Assembly members yi ñoom ñu bëree fa woon sax. Mm-hmm. ñoom ñu bëri it was um, fully packed. Um, suma chairman moom bi bi Yaya Menteng Sanyang defee lii dama ñëw civilized di ma walk out ma ne ko dinaa la call waaye he understood de mm-hmm. si suma ni ma doon di génnee rek mm-hmm, mm-hmm. gis na ne kii nii daal something is not all right waaw am na lu ko naxari xam na ne am na lu ko naxari so génn na si biti mu call ma ma dellusiwaat ma wax moom mu ne ma let it go mu ne ma bul alaaw bul bul alaaw lii nii mm-hmm. put la down mu ne ma just forget about it lii lii mm-hmm. happen happen na passé na mm-hmm. so bul nangu ñu delloosiwaat la gannaaw waaw waaye li ma bëgg a leeral mooy National Assembly members yi ñeneen ñaam fa woon waaye dégguma ko wax dara dégguma kenn ku ko counter te lim def it was out of topic ok waaw it was out of the agenda loolu yóbbu leen foofu daal loolu yóbbuwut leen foofu noonu loolu leen foofu noonu Mm-hmm. waaye nag a ah, loolu ñoom kenn ku si nekk ak ni ni nga receive information xëy na li mm-hmm. Yaya Menteng Sanyang def tamit mm-hmm. loolu it's not a big deal to them waaye man loolu daf ma naxari daf moo tax man maa maa ngi koo sotaa parce que man la ko def deful leen ko sambe ji kanam yaa ko feekul sa boppa te Yaya Menteng Sanyang bàyyiwut kenn even party member sami sax def na ko honorable member bu nekk a sukuta fa caam attaque na kooku disrespect na kooku noonu ba kooku génna mu génna kooku mm-hmm. génna tontu ko mm-hmm. ba pare xas ko mm-hmm. waaye kii xaste du ko dee def dara sax parce que kii amuru sukaay sa kii mel ni du loo mel ni doo dee sol tubéy yaayaa menten sañang yow lay waxal and for your information soo ko xamutee man I am a master's degree holder man dama am suma qualification in public sector management masters in public sector management te balaa boobu dama def suma O levels si Gambia bi fii def fi suma A levels am fi suma first degree University of the Gambia for your information man position bii nii demuma through the back door ma am ko. Mhm. dañ ko advertise. Mhm. ma apply ma ñu shortlist ma ma dem interview bi ma mhm. demee interview si interview bi sax ñu ngi ma doon di wax ne ma nii ne ñu ngi ma doon di yaaxal foofu noonu council bi ma doon di wax ne current commission of inquiry bi them dem on me. the PS has testified mi ngay wax ne suma interview bi la gaay bëggoon won pour ñu employé ma moo ma lima dal ci council bi warut a surprise kenn dañ mako togal pour yaaxal ma pour gëné ma ci council bi yaaya yaayaa sañam fa yo information soko xamuté ma wax lako yeen li ngeen ma def ni yeen ak ma torment I am being tormented te gis nga nak lu lu lu nekk dafa am fum M, em lu ëpp Busan tuuru nag bu M, si regla bi la em lo rek la am pour wax leen bayi leen ma ci biir dëkk bi man jigen la dama fi am suma family, am fi suma suma suma respect suma biir dëkk fi la ko ané té man luma luma am ni suma ndey ak suma baye ñoko liggéey dama haar suma yaay fi ma ko war a mu ñaanal ma dama suma way juri dama len dawal suma magi sa dama len xaar dama topa sen ganaw suma suma yaay suma papa suma onkoli suma jekir suma magi suma rakay sa dañ ma dé ñaanal because suma rakay sa dama len treat as suma suma suma mak I give each and everyone your your your respect your due yaayaa menten saña dégg naa ñu ngi Fatou Fatou Thiam mu ne dang dee dem day wóor di ñaan sarax man soo ma bàyyiwutee si mbedd bi nga dem ñaanee sarax mm-hmm. yow da am dara loo ma wax mm-hmm. ah yow sa National Assembly moto bu ñu la jox noonu ni yaali 5 millions dollars nit la fayal school fii si sa constituency mm-hmm. xam nga ñaata baadoola la dundal xam nga ñaata dépense la génnee a ñaata jigéen nga mun a lebal pour ñu dem taka seen digal liggéey ñu mun a taxaw seen tànka te comme que ñooñu yoo leen ñoo support si sa si sa gannaaw lañ mm-hmm. dara la war yow depuis bu nga duggee office ba léegi ana loo achieve si sa constituency Yahya Menteng Sanyang mm-hmm. yow soo amutee jom ah, soo amutee rusukaay man tey dinaa la ko xamal yow doo dee rus ah ñim bu ka malu fang ñim mam ñim ñim bu ka malu kii du dee rus kii amul mm-hmm. dara lu ma wax waaye yow maa ngi laa xaar su góor nga te óolu nga sa boppa te jigéen moo la jur suma ma dajee yow nga ubi sa gemen bi nga wax ma anything ci yoon bi yow kéro di nga xam kuy sénabu Martin Sonko ni nga xamadi mhm. ok jërëjëf thank you so much ba léegi danañ continuer ci interview bi albar ma laaj baro baro euh dañ am interview bi dana ko dañ ko continuer ak CEO Zenab Martin Sonko eh, wax bi bari na won time bobu eh, sa diggante ak KMC Mayo souda eh, so yow jigen la wax wax bu nek ya fo janne sa kaw waaye muñ nga da nga def sabaro ba loolu yëpp passé léegi fu ñu mel ni dafa mel affaire bi bu ngi loxo commission mhm. so uh, we all wait for the outcome waaye léegi for for the commission yeah so now uh, dañ na bëgg a ñini ka pour léegi government daf la yóbbu eh, Kerewan area council you are working with uh, chairman Papa Tunkara so itani mool la kuol bi jee ñaadi le naka la nekka naka nga nekka di def ak waa ñu nekka kerewaan you know waaw si not banque yi yaa ngi dem di ñëw you are working with them how do you feel mm-hmm. alhamdulillah maa ngi sant yàlla di ko gërëm eh, di julliwaat si suñ yonent bi di sant mm-hmm. suma ñaari waajur yi ak mm-hmm. suma wel sa si family members si mm-hmm. yëpp ah, Kerewan area council jaama rek moo ma fa taacu macha allah jaama rek suma chairman bi ku am jaama la ah, ku bugga nit la ku bugga ku bugga dikaam la ah, ku ku bugga North Bank la ku fonka North Bank la man nag lii du man maa ko wasa waa North Bank ñoo ko di ko wax waaw te staff bi foofu noonu wax dëgg ne yàlla ñoom itamit ah, receive nañ ma ak open arms. Mhm. Ah, I feel so much at home foofu noonu Kerewan mhm. Area Council. Ah, sant naa fa yàlla de wax dëgg neex yàlla am naa fa jàmm te jàmm moo gën a important. Mhm. olof yi dañ dee wax benn kàddu ñu ne daagul fañ la buggee. ah ñoom ñu ne bëgguñ ma di doon wan mi at KMC bàyyi mm-hmm. naa leen KMC nañ ko lekka mm-hmm. te ñu bàyyi ma suma jaama man dama move on mm-hmm. man duma dee even think about these people sax much more tey kii dem si National Assembly bi di am lu maa wax mata bi mu si commission bi nañ bàyyi commission bi mu pare su paree recommendation yi commission bi dinañ ko implement ah ñoom dañ feel feel nañ seen feel Yaya Menteng Sanyang constituency defu fa dara xanaa moom gisul Papa Tunkara lu moo def. bilaay ñu ngi dis dis ah, Papa Tunkara daal ah mu ngi donate ah, mu ngi mu ngi donate jokeeti to the policemen ah, ak football team si. youth si foofu mm. noonu si North Bank bi yëpp mu ngi leen a mu ngi leen a eh, mm. support in partnership with the mm. governor's office. ah amul luñ nekku def foofu noonu. ah governor bi si boppam daf ñu dalal man maa Papa Tunkara daf ñu téye comme ay doom. governor Seri kan daf ñu dalal téye ñu comme doomam maa ngi koo gërëm di ko sant moom i tamit du ma ko mun a ñàkkaa waa waaw so alhamdulillah ñun liggéey liggéey moo we want to focus on our tax ñun dañ bëgg a liggéey xam nga yaaya maintenance saa soo amutee dara looy mun a deliver si sa nit ñi bàyyi liggéeykat yi ñu liggéey waa yéen li ngeen yàllon ko xam ngeen ne li ngeen wax fen la da ngeen fen ba pare you are doing everything possible to make it right it can never work du musa work si Gambia bi loolu nga mën loolu laa am pour wax leen seet leen si Thiamane Papa Tunkara li moo def hmm. ngeen def loolu noonu mu ngi noppi di liggéey liggéeyam macha allah laf cat yal na ko yàlla lafal cat ak seen bët yu bon yi ak hmm. seen gémmiñ yu bon yi hmm. yal nañu si yàlla musal waaye yow yaayaa menten sagnag ma laa ne sa gémmiñ bu bon boobu noonu tey nga ubbi sa gémmiñ bi di di mention CEO KMC yow yaayaa menten sagnag lépp lu bon loo si éene yal na ko yàlla koppa sa boppa bi ak sa njaboot bi man di ngeen ma yab yo mbaɗigol mbele ya moy uh, seeɗa matine mum fo nte my first question is walambe mbe ñin